xam nga li mu daan li mu daan wax yëpp man du nangu man ñaar yi dafa dal am mooy gouvernement am kenn musul gis loolu sa gouvernement nga nekk chef bi say député ñu jox leen ordre ne la nañ leen dem saytu jël waaw say ministre di la attaqué say ministre yéeg sa benn DG yéeg bu ñuy wax Souleymane Ndiaye bu sakko sa DG yéeg Mame Mbaye Niang di la ko

écarter le premier ministre. yow dama ne soit bu ñu ragalee Amadou. parce que on avait dit. yow fonctionnaire de l'État nga waxoon ni Amadou amul. dina pas le droit d'attaquer le premier ministre. Yo, nga toog fii di attaquer le premier ministre non waaw man du ma fonctionnaire yow directeur ay ministre yëpp kenn du leen wax dara man dama ne Amadou lañ doon wax amul courage. yow directeur de la communication j'ai l'impression que les gens ont peur de. attaque le premier ministre. Ah waaw. waaw comment ça les gens ont peur de Amadou. dañ leen ko toog yéen dañ leen ko toog. ma ne APR. ah man de ak bah? tax oui parce que xamoo lu on a fait de lui son notre candidat. on a fait de lui notre candidat. mais ah, bàyyi bàyyi c'est il pèse mais Macky Sall aurait dit. dans l'affaire il ne pèse rien. dans la paire, c'est Macky Sall. les élections sont Macky Sall. bañu dans le gouvernement c'est ton patron je ne refuse pas. dans un autre pays est-ce que c'est toujours Macky Sall. tu n'aurais pas l'affaire c'est toujours Macky Sall. non je n'ai plus Macky Sall. l'alliance pour la République c'est toujours Macky Sall qui commande qui est le chef. Et on verra d'ici quelques jours. Exécuté parce qu'il est le chef. Hein. C'est lui qui décidera. Non, d'ici quelques jours. J'ai dit. Deux choses. Non, non d'ici quelques jours. alliance pour la république. Hmm. patron bi ben patron là. et dans les quelques jours d'ici quelques jours. patron bi ben patron d'ici quelques jours. on est donc.

Hein? de procurer de procuration procuration ne puisse porter son combat. il sait porter son combat. il portera son combat est-ce que en position de faiblesse. quelle position de faiblesse. Ni à un de faiblesse. le parti est derrière lui. tout le parti. est derrière le président de la République tout le parti est derrière le 27 jours. j'ai dit il a le contrôle. il a le contrôle oui parce qu'il n'est pas défendu. Son premier bouclier, son premier bouclier devait être Amadou Son premier bouclier. Il renouvelle la confiance. J'ai dit, j'ai dit, premier bouclier doit être Amadou Il doit être Amadou Pourquoi non, non, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est un constat que j'ai fait. Tu am naa ci droit. Président Macky Sall il est seul, c'est pas normal.

kan Amadou Ba léegi boo xamante kan Amadou Ba kon Amadou Ba carton la Amadou Ba carton la non Amadou Ba carton la. kon Amadou Ba pare nañ. non dama ne. confirmé. ban confirmé. mais bien sûr confirmé na ko bu yàgg. waay loolu loolu bàyyi nee na moom à partir du 26 candidat amatul ñii xam nañu amatul. candidat ñii dootul pour cent kon candidat amatul si réew. non yow élection yi passé na. kon Amadou Ma nekk non kon élection passé na wala passé na. kon Diomaye président non déglu rek. kon Diomaye du bokk on n'était pas le 25 février. Diomaye du bokk. kon Diomaye du bokk mukk. ah du kuy bokk ah kon kii day ñëw. Karim day bokk ak Sonko day ñëw aussi.

envoyé naa la waru woon jàll envoyé naa la conseil des ministres non man ñaari ñaari problème conseil des ministres tey non na jàll ah mais sëriñ mais non ah, non lan ngay wooyee Kurama. non Kurama mooy yoo xam nga luy Kurama. waaw li ma ko siy d'accord daal mooy waa ji. moom non boo ko bindalee benn affaire du ko mu signé. non waxuma signé non non dama ne non dama ne dama ne. le décret est écrit en français. dama naan beneen problème a ngi nii la. waaw sëñ bi dégg dégg na français dégg na français. non dëggul sëñ bi ma ne est-ce que. envoyé naa la diplôme bi sorbonne. non waxuma si diplôme mun na am non na am diplôme en anglais. wala en mais Aliou Aliou Aliou yaa ngi may bëgg Serigne Boub. non non xam nga lu tax Serigne Boub ngay tudd nii sax. mais tax ma am bëgg Serigne Boub mais parce que Serigne Boub waroon jàll Hein? pour man ah, chambre de commerce. Ah, tout ce que vous voulez il député maire d'accord mais pour être président de la république il faut que ngay làkk français couramment. Pourquoi? pourquoi non Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi? couramment Pourquoi pourquoi. couramment Pourquoi Pourquoi Pourquoi nga maîtriser français. Pourquoi Pourquoi non Pourquoi wax Pourquoi Pourquoi bind non dama lay Pourquoi non couramment Pourquoi wax. couramment Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi kii euh, non non un et... Ouais, ah, là, ça y est, non, non, c'est vrai. Teaser complets Non, non, c'est la constitution non, qui a un problème. là non, quand non, constitution un problème. Non, non, d'abord, non. mais nous connaissons pas le couramment wolof. Quand tu vis constitution, bi nous changer français. Il est parlé couramment wolof. Mais français, nous disons. Mais c'est beaucoup de couramment français. Mais le débat, c'est pas. Serigne Boum, n'a rien. Mais plateau, vous waxe Mais non, xam lu tax non, parce que qui, moi, fi wax au Serigne Boum. C'est son porte-parole. Mais comme vous porte-parole, nak ko wax ni porte-parole. bi avouez ni Serigne Boum ne parle pas couramment le français. Moi, là. xamul parlement xam nga làkk France comme yow da ngay làkk France waaw kay mooy lan mooy lan mooy lan couramment couramment mooy lan da daal gënal dictionnaire bi nii waaw non couramment mooy lan non mais gars yi c'est loo xam ne ngay làkkee français non non mais attends mais loolu la caution wax mais français la ñu wax waxuñu wolof waxuñu bambara français la ñu wax xoolal buñ ko waxoon wolof garaaw il va faire seen discours à l'ONU en anglais waxuma loolu en anglais loolu nekk bu nekkul anglais garaaw non dama la wax ne caution bi wax bu nekkul anglais garaaw kon yow bu déggul non même bu déggul anglais da bu déggul anglais mais doomu daara yëpp waaw ñoom ñi déggul français doomu daara bu dégg français waaw nga xam waaw de fu neex nga dindi ko sinon nga dindi nekk sponsor naka dool doomu daara déet waxul loolu de. xool ko non non de. lii lay def bu yàq waxu jàmbur waxu loolu. waxu la loolu. waxu la loolu waxu loolu. moo ko def bu yàq. waxu loolu waxu loolu. non bu ma nee da nga jàpp. waxu loolu waxu loolu. non fii ñi fi toog yëpp leer na seen bopp. na wax ñi déglu aussi leer na. waxul non il faut pas être comme ça. émission bi te réglé wu ñu. sama sama dégg maa ngi déglu émission bi yow yaa ne doomu daara yi ak nu ngeen toll yëpp. Ah, ah, ah. seen marque. choisi ils ont choisi d'apprendre en arabe. yow nga ne leen yéen ñëpp. yéen ñëpp ci poubelle ba. vous ne pouvez pas diriger ça. Ah! Ah! déedéet déedéet déedéet. désinformé day wax ñu ko. non ci la non du nag ma def ba wàcc man fi ma toog laa bëgg xam lu ma def ba wàcc. non non comment faire pour descendre de ma chaise. non non non moom xamul lu conseil constitutionnel def ba ba mu jàll. mais peut être est ce que du diw moo wax ko diw bu joxe. non non non. que du diw sax moo joxe caution pour Rose Wardini 30 millions en liquide. ah oui. woon noonu. mais day gën a bëriwaat non non man waxuma parce que tey doomu daara yëpp. duudu ah, yow nga offensé. duudu pédologie ngay def sànq ba léegi. doomu daara yëpp nga offensé doomu daara yëpp ak ñoo ak ñoo doomu daara ak ñoo ba xel heureusement ba affiché woo si benn parti. mais bii sax dootul bëri vie émission bi du bëri. Ah! yow yaa kii bi nga yàqal de. non non duudu lan laa ko def man. non mais duudu tey moom penalty rek nga fi def penalty. non mais est-ce que puisque est-ce que nous Serigne Bou 30 millions pour mais mais mais oui mais eh, eh, mais mais y a une certaine collusion entre le PDS et sa candidat. waouh oui, il paraît. dégg naa ko de il paraît da ngeen a far de. est-ce que du loolu ah. tax est-ce que du loolu moo tax affaire bi tudd ànd nawle. waaw parce que ay nawle lañ. ay nawle lañ ay nawle lañ de. <laughs> am na ku ko waxoon fii de. Ah, damay laaj dong waay ne ko nuyul ñu nuyul ñu sëriñ bi. non non non mais mais mais. mais waaw Mayoro Faye fi nga fi nga invité keroog yaa ngi toog Mayoro daa ngi ne. je ne réponds pas à la provocation. donc du tontu foofu. du doo tontu waay. nuyu ñu sëriñ da te te daf ko wax avec insistance. insistance ba ñu paree yaa ngi taxaw maa ngi taxaw. Mayoro waaye man man man Mayoro sànq li nga wax loo ci dégg Mayoro wax loo xam ne Doudou yow yaa ngi taxaw. Não, não não, não, não não, não, não não, não, não, não, mbuus. dégg naa sax est-ce que est-ce que ñooy ja est-ce que. question laay posé. est-ce que PDS jàppale ñu ko jox ñu ko. waaw si il faut ñu jàppale ko nag. parce que xam nga lu tax mais mais moom c'est que dafa am chance parce que moom dañ koy jàppale. ci boor bi di ko jàppale ci boor bële aussi. non non ñun. waaw dafa am <laughs> loolu yow. allo lu loolu. waaw mais xaritu Mayoro la waa kër Mayoro la kay. waaw ak ah, ah, ah, beneen côté bi. beneen côté bi ak xaritu diw. xaritu diw ban ci. mais diw. diw bi joxe caution yi. waaw kay kooku <laughs> mooy mooy mooy du sang moom. waaw du sang ñun dañu may caution. déedéet non yéen mun ngeen yéen am ngeen njëgu caution. waaw du sang moom ngeen ne moom mun na nekk. mun na nekk non du sang man. yow de moytul jaar ci waawoon tey. yaa lu tax non. da nga yéen li nga leen waxal tey. <laughs> li nga waxal waa ci waawoon. <laughs> te man ba léegi déggu ma le militant. ruus léegi. Euh,